def na xazalam def na chakwaam ci bunt bu njëkk mu ñëw ñun ci limu en bakkan bi mu ne fa inna ammaarati naka bakkan ba da aji digal ma bi suu i ci ñaawteef xanaa xalaatu dara moom de mattaazat waaruhut dégg nga wala da nga naan danga naan fa inna ammaarati naka bakkan bada aji digal ma bis i ci ñaawteef min jahliha ngir réeram gi moo tax moom ma taadat waaruhut bi nadiri chey bi ci waaraateeg bi jaaw wala xërami ak màgget bakkan bi may digal lu bon te maa ngi nii nekk naa mag ba pare xalaatul sama màggat gi xalaatut bi jaaw gi ci man ne ñoom war na leen rus sax ba lii mu may digal ma def ko bu ma ko digal yaa ngi dégg ndax bakkan moom moom du dee dafay dafay dafay sonn rek te bakkan loolu sa nga di wax ne ñetti bakkan la waaye bakkan juróom-ñaari bakkan ci li gën a néew li ñuy compte juróom-ñaar yoo xam ne alxuraan tudd na leen alxuraan tudd na nafsu lawaama nafsu lawaama nafsu amaara bi suu nafsu mutmainna nafsu raadiya mardiya des na ñaari bakkan des na ñaar ci njël benn nafsu mulhima en des na ñaari bakkan en bii muy wax nii mooy nafsu amaara bi suu nafsu amaara bi suu mooy bakkan bi lay wax ne demal nga def lii sàccal li jëlal li defal li ñu lay aaye sa xel mi la koy digal wóor na la lii dañ lay aaye dañ la ko dañ koo tere bakkan bi la koy digal te boo ko defee ba pare mën nga cee jëlee lu xam ne du la neex ba kan boobu la ñuy wax am maara bi suu moo lay digal lu bon naa maarati bi suu ima taazat min jeliha yaa ngi dégg nafsu am maara bi suu nag bu fa jugee rek mën naa nekk nafsu mulhima kan boo xam ne dafay tuumaal boppam yaa ngi dégg moo tax mu ne bakkan bi ak nu mën a mel waroon naa rus bi jaaw bi wala mu rus màggataay gi moom de wala aadda taqadu wut préparé wut dafut benn préparation min al fi'lil ci jëf ju rafet ju mel nan qiraa dayfin gan ban gan gan goo xam ne alam ma rot na suma bopp bi alam ma na bi rasi ci suma bopp bi xeeru muxtachimi te duuhu mu aji xam kersa amul benn kersa ndeysaan lii nag euh, sax du nga bayit bii bu sari daf ko ab wayit ko bayit bi dayfun alamma bi rasi xeeru muxtachim atinaa la topp ca beneen bayit ba sax waaye kii moo ko way waykat bu mag la dégg nga hmm, waa turam dinaa ci ñëw xëy na dina darsu bi moom moo ko wax moo ne dayful gan goo xamante ne dafa ci suma bopp bi te amul benn kersa man du ma préparé ci moom lu dul boo ci jaasi rek rendi ko noonu la ko waxee yaa ngi dégg kon dayfun alamma bi rasi xayra muhtashim ba ba bayit boobu noonu bu seyri taalifi ko daf ko abbu def ko fi daf def ko fi law kuntu su ma nekkoon aalamu di xam ne anni naka man maa uwaqiruhu du ma ko wekk kon katam katamtu ma nëbbu sirran mbóot moo xam ne badaa feeñ na lii ñeexal ma minu ci moom bil katami ci diw katam diw katam diw katam boo ko doon wax ci pour ñépp xaw ko xam mooy tent tent xam nga am na tent yoo xam ne boo ko def sa bopp bi du bi jaw du mu sa feeñ waaw benn diw bu ñuy wax këtam noonu la mel nga koy diw ci sa bop bi du musa wex dégg nga mu ne moom su xamone du wek gan gi kon dana nëbbu mbotam ba gan gi du ko xam nëbbu mbóot bi lan mbóot bi be jawi su boba dana jël diw katam di ko diw ci bopam bi be be jawi du fay gis nga yimuy expliquer ni nak di tuddu ay béjjaaw di tuddu ay gan yep lebu la rek fay nek di leb mi ngi bëgg wax ci maqamu yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour yow mi degut dama man li ana kan la ñeexal ma bi raddi jimaaxin ci dello ak mamu, min rawayatiha tukkee ci mbew tem bakkan bu mamu, ngir ne dafa bew xam nga mooy bakkan bu mamu, mooy bakkan boo xam ne lépp luñ koy tere ci mbon rek mi ngi koy def dafa mamu parce que lan dafa bew te bew baaxut hmm? kama radd comme ni ñuy dellooxee jimaahu jimaaxul xayli mam ak fas bi lujumi ci laxab boo defee la fas boo ko laxabee jël buum bi def ko ci gémmiñ bi bu mammee boo xëccee dafay taxaw dégg nga kon loolu yëpp ñu si jublu rek bakkan bi ni nga xam ne noonu lañ ko war a garder dégg nga day ba bu mu dugg ci yenn yi mu ne falaa bul sàkku bil maasi ci mooy gii bakkan di mooy kasara shahwatiha damm bànneexam bi moom bànneexi bakkan bu ko xaar ci mooyam gi muy mooy de nga ne da fa arrêté da ko fa arrêté damm mbooleem bànneex yi ci yoo xam ne moom moom lay bànneexoo moom bakkan déedéet ndax inna taama naka ñam yu xaw wii dafay dëgëral shahwata nahimi bànneexi aji fuqale ku fuqale bu tiimee ñam wu neex moom xel mi du yëg ni suur naa dafay lekk rek mën naa lekk bay wuccu sax wala mu def ni waa ji dafa lekk ba mbax gi naan nii mu tëdd naan ki ma tiim kan la ki takaw tiim ma kan la noonu la def ba jël paaka daal di ko jam ci mbax gi yaakaar ne dafa taxaw tiim ko dégg nga far moom mu far fa dee dégg nga ko dafa rekk boobu moo tax noonu la moo tax mu ne inna taama yuqawi shahwata nahimi ñam dafay dëgëral bànneexu aji fuqale te wan nafsu bakkan kat tifli comme gone la rek in tuhmiluhu boo ko neenalee rek shabba mu màgg ala ci bëgg nàmp wa in taftimhu soo ko feralee yan mu daal di fer boo fi jëloon Baye Moutar mi wala Mohamed bi tey feraloo leen bàyyi leen noonu rek buñ jàng jee ba ñëw sax laaj seen yaay ween pour nàmp parce que feraloo leen dégg nga kon xale fekk faraloo ko rek moom dafay kon bakkan bi it fekk aayewoo ko lii ngay dégg ku nekk ci dara naan mënuma ko ba léegi rek gis kuy tuux cigarette nga wax ko mu ne la billaay bàyyi ko rek bëgg waaye mënuma ko ba billaay bu ko bëggee ba rek ba ko doomu aadama amut lu muy nekk cheikhul islam radiallahu anhu benn yoon ci aj gala wala wala defe naa ci aj gala guru daf daan yëy guru comme bàyyam alxaaji abdallah ndeysaan mu mar guru bopp bi di métti ban dañ doon takk boppam bi dañ ko doon takk dugg ci marché bi yëpp di ut guru mënuñu am ñu dem ba ci ba ci ambassade Sénégal bi di ut foofu guru mënuñu am gars yi ñëwee bàyyi na leen toog leen bu leen dem fen toog leen ma won guru ne ko man benn yàlla bu may jaamu laa am guru du mun doo suma yàlla tey laay bay guru tey laa koy ba keroog la ko ba parce que mu di ko mu bu ko amut mu koy métti bopp moom loolu bëgg ko léegoo leen nga gis koo xam naan ataaya ataaya day boppam bi bu ko maree dafay stress foog mu xam ko foog mu naan ko balaa boppam bi métti wala nangam nangam yooyu nit moo ci mooy bëgg moo ciy bëgg ne rek ne ci boo ci bëggutu ne rek doo ci ne wan nafsu ka tifli in tuhmilhu shabba ala hubbi radaa'i wa in taftimu yanfatik kon nag fasrif hawaaha soppandil bànnee xam bi changé ko wa xaadir ta nga wéytandiku an tuwalliyahu mu méng la maanaam mu ànd ak yow nekk sa ndax inna la waa bànneexu bakkan maa tawalla lépp lu mu ànd ak yusmi dana ko ayibal aw yasimi wala mu lor ko lépp lu mu ànd bakkan lépp loo nekk ak sa bànneexi bakkan rek dana la indil problème dégg nga te nag waraa'ihaa de. سمال سبانيخ بكان بي قمال فين لي جبل وهي تمام في الاعمال ما نجي جير جي سائمه دي ادي نيخلوكو ديكو نيخلو وا آه، ملني موم دا فا بويل بوبام و ان هي دونت موم استحلتي دا فا نيخلو المرعى سم واي با فلا تشمي بوكو بويل دا ولا ما في الاعمال تشا جف جا سائمه دي ادي بوي مانام كوم ملني كو ام ليبرتي وإن هي دونت يوم بكر استحلتي ما غير نيخلو المرعى سم واي sàmm waay mooy fi mu nekk di def rek wala toujours bu ko bayal de boo ko bayee rek mu def xay bakkan kenn bu ko seetaan bàyyi ko noonu rek doo ko wax dara day jéem a am loo bañ jéem a am loo bëgg jéem a am loo tere sa bakkan bi mu ne kam xasanat bëri na bum rafetala rafetale lazzatan bànneexi bakkan lil mar i ci waay qaatilatan mbir moom muy ajaray ko mu ne xay su foo xam ne lam yadri xamut sax waa ji ne an na summa naka tooke fit dasami mi ngi ci diw ñor gi bakkan daf lay naaj naaj salal xoolal Namruud keroog bi mu waxee gars yi ñu ne yooyu weñ wi weñ la wala yoo yooyu moo dugg ci nopp bi yoo waa ci nekk ci nopp bi mu ne yooyu daf koo sonnal te kenn mun a génnee yooyu léegi ni ñuy def mooy nañ ko daggal boppam bi ñu defal ko benn boppi or ñu changer ko bopp bi defal ko beneen bopp. xam nga kooku ah xam nga ne kooku macha allah la yàlla xam doy na ah léegi nag bànneexi bakkanam moo ko rafetalal ne ko boppi or bii mën nañoo dagg sa bopp bi changer la ko defal la ko nga continuer dund un problème ah gars yi daal di dagg dara ji sànni ñu daal di meese ba dara di taxaw ñu monter boppi or bi namrus mu ne këleñ ñu lamb lamb mu ne këleñ. ñu xam ne fi buur bi moom nekkatul buur ndax dee na ah kuñ dagg sa bopp kay xam nga ne Allah kay amoo xiyaam rek ngay dem te loolu yëpp bànneex ba kanam bi rek moo ko si jiwoo leneen kii di nelaw nii jox leen ko téere bi mu dem jàngi mu ëpp solo mu toog fi di nelaw saas kii na dem jàngi moo gën <clears throat> yaa ngi dégg yoon di nga mënta déglu kay mu ne wax nanga nga ragal addasaa isa ay jafe-jafe addasaa isa ay gàkk-gàkk ay jafe-jafe min juin laala moom bu tukkee ci xiif la wa min shibain wala bu tukkee ci regg gis nga xiif ak regg ñoom ñaar ñëpp yam bu ci ëpp rek ci ëpp rek mu ne farub ba bëri na max masatin regg boo xam ne charrun moo gën a bon mi na tuxami ci xiif ndax amaana koo xam ne dafa rek nelaw yu bari foo gis kuy nelaw lu bëri day lekk lu bari rek nekk nelaw lu bari seen baat yi nga xam ne mënta neex koo ci ne jàngale mu naan xuux xuux lekk lu bëri rek dara ku ci doon xamele lekkam léegi tey mën a tëju tëju lu neex waaw ah. mu ne wastafrixi na nga féexal jéem koo jeexal boog addama ronqañ min aynin ci bët boobu xadim tala at na mu dell min al maxaarimi ciñ xarmal walzam ta nga taqoo ximyatan nadami kaaraangag réccu kaaraangag ku ko taqoo lépp loo xam ne passé na ci sa ginnaaw ak nad tawbatu lu mu wax tawba tuub mooy lan baaba ak wala egg fa ah kay egg fa kay ak tawbatu lu ci topp yi an வா வால்முடம் dégg nga tuub mooy rëccu lu wees te doo ci dellu moo tax mu ne walzam ximyatan na dañ te boo ko defee ba pare nag wa xaalifin nafsa nga uuteeg bakkan wa cheytaana ak cheytaane waasihima dégg nga ka tanga moytu leen gàddaay leen wa in huma donte ñoom ñaar sax ma xat daaka dañ lay may an nusxa laaye biir naan la pourtant lii boo ko defee mu baax de fa tey mi tuumaal leen bu leen óolu de benn borom xam-xam bu mag bu dëkk Bagdad ñu di ko ooyee xaatimul asam xaatim boo demee ca mukaashafatul qulub ci imaamul xazaali yi ñu koy nettali mu ne xaatim dafa ne inibtulitu bi ba ma sullitu illa li shiddati shaqwati wa anaa'i iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al xalaas wa kulluhum aadaai buñ mën na toog ci ñeenti yëf mënu ma see jëlee lu dul texaadi ak coono rek dégg ko ñu ne ko ñeenti yooyu mooy lan mu ne ak àddina ak sama bakkan bi ak bànneexi bakkan bi ñeenti yii nan lay muccee ci ñoom te ñoom ñëpp samay noonu lañ léegi nag yow buñ lay digal doo foog ne say noonu lañ Hmm? bakkan bi muy jax-jaxal aadama xam na ne mu dara ci aadama fa xaar ba aadama génn mu jax-jaxal xawa xawa lekk ci garab gi ba pare denc dagg doom dencal jëkkër ji yaakaar ne affaire bi dafa baax di ama ñu ne iblis la ñu hmm. seeti iblis de boo demee kër bakkan fekk ko fa dégg nga wa in huma mahabba ka nusxa wala tuti te jox min kenn ci ñoom ñaar xasman xuloo wala xakaman du caganaate bul gëm kenn xolal hmm. gars yi miin Dakar soo xam nañ ne léegoo léeg ñu jaar ci fi bandi yi di kii di taxaw agresseurs yeeg yooyu da ngay mel ni kuy romb rek nga gis ñoom ñaar songo mel ni ñuy xeex bëgguñ dara lu dul nga ne da ñëw pour àtte leen ñu rocci li nga xam ne rek la nu xeexuñ de pexe la yaa ngi dégg moo tax mu ne faante de wala taamiru maa xasman wala xakaman moo xam kuy xuloo la wala kuy àtte yow ci jox kenn kóolute ndax fa anta yow taarifu xam nga kaydal dal mi pexem aji xuloo ji wal xakame ak at ate te ñoom ñaar ñu bakkan la bul bul bul dugg seen mbir dégg ko tuumaal leen rek yow taxawal fële rek daa laaj Moustapha Guèye daan wax rahmatullahi aley bu ñu rëddee rëdd ne képp ku fi jaar dee yow teggi ko ba pare di wax ne xay ñu dëgg jaar teggi ba pare di wax ne xay ñu waxuñ dëgg bala nga wax naan ay ñu waxuñ dëgg de fekk mu mucc mooy teggil ba pare mu ne astagfirullah maa ngi jéggalu yàlla min qawlin ci wax bila amalin ju àndut ak jëf wax joo xam ne da ngay wax rek doo def dara maa ngi ciy jéggalu yàlla laqad nasabtu dégg nga ko askana lana bii ci moom naslan ngir te lisi oqami ci borom ak jërmeel xaskanal naa dégg nga ngir te loo xam ne borom ak jërmeel la koo xam ne dama ne kii dafa am dafa am njaboot te kooku dafa jërmeel mënta am njaboot mënta am doom mooy lan foog nga ne bakkan mi nga am ay ay jikko yu baax ay jikko yu sell fekk na dara amu ci amartukal xayra man de digal naa lu baax lakin waaye li fi ne ma tamattu bihi man de la ma la digal topp ma ci wa ma staqamtu jubuma waa qawli mu la samay wax laka ñeel li staqim jubal bu soyri mooy wàccee boppam noonu man waxtu ne maa ngi lay waar naan la jubal defal lii defal laa te li ma lay wax nga def ko man defuma ko ban njëriñ la am ah wala tazawattu te yóbbuluhuma utuma benn yóbbal qablal mawti balaa dee naafila tan benn naafila walam usalli te julliwuma siwa fardin lu dut jullik farata walam asumi te ooruma lu dut koorok farata te yow maa ngi la naan naafilaal maa ngi la ooral loolu ban njëriñ la am dégg nga ko ñu ko alquran waxee yaa ayuha alladina amanu lima taquluuna ma la tafaaluuna kabura maqatan inda allahi an taqulu ma la tafaaluun وفي الدرس بدي أمتي يلنا يا لما ينجدك الطب صلى الله وسلم على سيدنا